bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa shafiicina wa mawlaana muhammad ibn abdillah wa ala aalihi wa sahbihi wa sallim ixwatil kiraam أصحاب المعالي سعادة العلماء أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki tedd yi ñu déglu ñu ngi leen di nuyu te leen ziar di leen balu àq te leen baal àq di ñaan yàlla yàlla nanu yàlla boole jéggal Sud FM seen rajo 98 point 5 kaddu gi bàyyi ko fii ci dellu siwaat naa yéen seen émission bi de tuddee koor te seen mbokk oustaz Alioune mbay fas yéen ca fegg yéen incha allah ba waxtu wi jot ginnaaw loolu nag ñoo ngi dollee ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër ñaan sunu boroom subhaanahu wa mu faj aaju yi tegi tiis yi saafara jàngoro yi te jéggale bàkkaar yi yal na yàlla gën a xiir ci boppam aar ñu làq ñu fa yàq yëgul yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqule mbokk yi waxtu wi démb bi ñu taqalikoog yéen ñoo ngi woon ci bilaal ibnu rabaax ak umayata ibnu xalaf ñoom ñaar ñi nga xam ne ñoom la seen ñaari wayjur bàyyi nag kii doon nguur waaye kii doon njaam doonte bàyyam sax gore woon na waaye dañuy yéegal xale bi ci yaayam muy xamaama mi nga xam nii mooy ku jigéen ki ko jur xam ngeen ni arab yi bu jëkk jàpp jaam jaay ay jaam jël ay nit ñu taxaw taxawaayu xar yi jël nit mu taxaw taxawaayu bàyyi ma moo moo nekkoon seen civilisation liñ daan tiitaloo nag mooy ami jaam booba ci ngay mën a wane ci lañ war a xam ni euh, diw kilifa la wala diw tam ci ñuy tudd ci noble ci la bokk <coughs> waaye tànk amuloo jaam moom te jaam mooy not nit ni yow moom ko moom la mu moom xañ koy àq xañ koy droit mu lay dawal guddeeg bëccëg yoo xam ne bindoo ko sàkkoo ko li ko fi indi xamoo ko wala boog li la fi indi mooy li ko fi indi yéen ñëpp yéen a bokk mel na maam muy aadama seen cosaan di suuf ñu ñëw nag ba gënante fi ba ëppante fi doole ëppalante fi alal am nu nu ko tërale muy law di law ba jéggi dayoo mujj nekk civilisation ci jamono boobu ci la le serviteur le prophète sallallahu alayhi ci la ko yàlla yónni waaye lëndamuk kéefër lëndamuk bokkaale lëndamuk jaamu xiram lëndamu lekk alalu nit noot nit lëndëm googu moo wërngal këpp àddina bi moo tax sunu maam sunu sëriñ sunu lépp Mawlana Cheikh Haj Malik Si radiyallahu taala anhu daf ne law lam yelux fi fadail kawni talaatuhu tabqa albariyatu fi zalmaai yallaahu bu nu woon xuy xuy gi mu nu xuy ci jamono mooy leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi bu nu woon jaar gi mu fi jaar rek nee na tabqa dina des albariyatu mbindeef yépp fii zalmaa yi ci lëndamuk kéefër lëndamuk bokkaale lëndam goo xamante ne nii duñ ci gaaw a génn waaye ndokk mënu ko yàlla yónnee sallallahu ci jamono jooju ci la yàlla yónni sayyidul wujuud ma lay wax ni wallahu arsalahu lil aalamiin yàllaa ko yónni nag bi àdduna bi paane àdduna bi jaxasoo kenn xamatul ku mu àndal ci la ko sunu borom subhaanahu wa yónnee nag lil aalamiina ci la monde entier lan la ko yónnee hudan ci njub égalité démocratie nekk benn xam sunu bopp xam sunu borom kennal kenn ki muy sunu borom subhanahu wa ñeneen ci des ñëpp ñu se ñu joxante cër dëkk dëkkinu rafet loolu la fi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi xam ngeen ni sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atmosphère am ci ngay gën a xamee mooy kan wala environnement am su fekkee dafa juddu ci góor gu ñu wax abdullah abdullahi war a symboliser jaamu yàlla te nit ñi bu jëkk dañ doon jaamu uzze di jaamu laata ay xubal ay gën ki kuur yooyu lañ daan jaamu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñëw ni nañu jaamu kenn muy Allah kooku moom la ñu war a jaamu baayam tudd Abdullah nga xam ne kon kon moom li muy woote booy xool ci environnement am commencé koo gëm mu juddoo ci jigéen ju sell jigéen ju baax koo xam ni ala nisa sharafan jigéen ñépp moo leen tiimoon ci tëddange ndax jikko ju rafet ak askan wu baax ñu tudde ko Amina Amina wala Amina war a symboliser kóor kóolute wala confiance nit ku ñu wóolu Aminata mooy ku ñu wóolu jaam bu sa boroom su bàyyi koo ci ku ñu wóolu sécurité daan nay taxaw yéen yàlla wax ñu dénk ko jigéen ju baax ñu naan xalimatu saadiya xalima war a nekk lu teey lu sell te lewet mooy xalimatu saadiya saadiya dikk indi texe kooku nàmpal ko mu nàmpal ci yeneen jigéen yu fa ba fa ba war a tekk tuyaaba muy sawaab kon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam léppam environnement am atmosphère am lépp moo yàlla moom ñu tuddee ko nag Muhammadul Amin mooy Muhammad mi ñu wóolu sallallahu alayhi wa ci jamono jooju mu ñëw nag indi jikko daa wax ne innama bu'astu li utammima man yàlla dafa ma yónni ngir ma ñëw mottali si jikko yu rafet yi jikko yu sell yu sell yi jikko yi tedd yi nga xam ne ci la yàlla tagge nit yooyu moom laa ñëw pour mottali si ko ah mbokk yi fajar sa xar na fajar gi nga xam ne nii rabaax doon nag waxtaane ak xalaf te doon naan kon nag kañ la fajar si xar kañ la fajar si xar te mooy guddig lëndëm gi ñu nekkoon ak zulmatul jahli tooñu réer ak lëndamuk bokkaale yàlla ak ku kéefër kañ kañ lay feeñ bi ko rabax di wax xalaf booba kii la doon junj xëy na yàlla ko la woon boog mu yëgoon ko kon jaasi lëndëm jaas yi nga xam ne ni mooy dégaa sa lëndam judd na seeñ na te yàlla yónni na ko muy sang bi alayhi salaatu wasalaam woote ndànk-ndànk lee mu seet nit ni ko tranga laa yor yàllaa ma yónni ab yonent laa ñëw leen ñu ànd gëm yàlla kennal yàlla léeg la ñu fay ko ci tranga ju réy waaye léeg la toroxal ko ci kaka jëkk a gëm ci jigéen te baax mooy soxnaam xadijatu moo ko jëkk a gëm jël alalam jox ko jël jotam ak temps lépp teg ci loxoom nangul ko di ko xalal yoon lépp lu mu bëgg mu ànd ci ak moom lu mu santaane moo koy jëkk def lu mu tere moo koy bàyyi dimbali ko ba àdduna sépp xam ne xadija mii dimbali na boroom këram di ko jëndle ay di ko di di ko waxtaanle di wut ay finance yoo xamante ni fa ñu ko gën a bañee léeg-léeg Xadija wàcc fa rek waaw yéen lu ngeen xam ci Muhammad ñu ni eh waaye yow kooku bàyyi ko foofu ko yow day day font nit ñi taluñu ko mu ne pourtant nag nit ku baax la fexe leen koo xam fexe leen koo jege mu leen rëcc de ku baax la de yow looy liggéey ah man de maa ngi nii rek moom chômeur laa de luy sa métier ah man de xam naa ku ma joxoon as tuut ma mën a liggéey moom dina baax waaw na ñëw kër ga naa la dimbalee temps nga liggéey di verse ndax am loo jàpp da nga bàyyi ko xel nag ku baax la de noonu la Xadija daan jaar bu sang bi jaaree fii ci mbokk gi Xadija jaar ci suuf di ko dimbali jàppale ko du xiif du mar du rafle du dund stress du dund dara lu may Xadija mi ngi taxaw ci itam rahmatullahi alayhi wa radiya ka ca topp mooy Abu Bakrin Siddiq di kilifa di commerçant bu baax bëgg ko lool sopp ko lool nga xamante nii ni Xadijatu mel sax Abubakar ni Abubakar mele ko gën a gën a tar ngir sopp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam fii di woote Aboubacar jaar fii di woote te di ngeen ci xam lu bari ci kanam li Aboubacar réalisé ci wàllu woote bu jëkk bi nga xam ne booba kenn gëmagu ko kenn nangulagu ko fi nga xam ni Aboubacar jaar na fa incha allah ka ca topp mooy aliyun ibnu abi talib karramallahu wajhahu aliyun doomu abi taalib moos mi nga xam te ne yàlla teral na ko ba musul naan sàngara musul sujjóotal xiram musul bokkal la yàlla xam nga ne kon àdduna ñii ñooy ñi ko composé mag ñi jigéen ñi ak ndaw ñi kon commencé na leer ndax sang bi alayhi salaatu wa salaam ñi ko dar ñëpp ay nit ñu wóor lañu nit ñu dëggu lañu nit ñu baax lañu yonent bi sallallahu di woote Abubakar Sadiq di woote di jënd ay jaam di libéré ñépp Abubakar radiyallahu anhu def na ko ngir dimbali sang bi alayhi salaatu ku ñuy wax Ammar ibnu Yaasir Ammaar moo jëkk tuub moo jëkk a tuub Bilaal ndax moom moo jëkk a découvrir yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko ci sax dugal nag euh, mais kuy Ammaar Ammaar moo ko jur Yaasir soxnaam suñu wax Sumayya ñoom ñaar ñoo jur Ammaar certes ñoom ñaar duñu jaam Ammaar du jaam Yaasir du jaam Sumayatu du jaam waaye nag dañoo judd na ci famille bu néew doole famille boo xam ne dañu yoruñu dara dara dara yoruñu ko waaye nag duñu ay jaam nag ay góor lañu waaye nag Ammaar mu jëkkee découvrir yonent bi alayhi salaatu ba mu nangul ko xam ne lii mooy dëgg ndax sang bi wan na ko loo xamante ne mooy dëgg mooy leerug lislaam wan ko dëgg wan ko yàlla wan ko alaaxira wan ko ak mbaax te joxoñ ko middum àdduna bi ak àdduna mu ñàkke soloog ni muy jeexe amaar daf daan nangu ci saasi waaye bi mu ñëwee tam li mu dikk def moom amaar daf daal di commencé daawa ci ñaari way juróom commencé leenu gëmloo lislaam gëmloo baay bi gëmloo yaay ji commencé jàllale message am comme ni ko sang bi alayhi salaatu salaam bëggee ci yenn ci ay kilifa waaye baayam bi rey nañ ko rey bu metti toroxal nañ ko yaayam jiitam dee na dee gu metti gu tar gu doy waar ndax moom bi mu gëmee kilifay màkk yi dañu ni li ñu naqadi ci dëkk bi rek jaam yi ak nit ñu ñàkk solo ñu amul dara ñooñu ko teg yaasiir amul waaye yeew nañu ko futti nañu ko teg ko ci bant tiim koo ko yar di ko dóor di ko toroxal ci lañuy weddil Muhammad weddil Muhammad ñu bàyyi la ndax boo bëggoon joxe exemple ci jaam yi ak ñu néew ji doole yi waaye ki xas ba gëm gëm yonent bi alayhi salaatu gëm sunu borom dootoo gis mukk deegu deegu àdduna gi wala nga gis dee yu ñàkk solo yi yow la ngay gis rek mooy yërmande yàlla ak àjjana ak li yàlla di xaare jaamam yi ko gëm foofu ngay teg sa bët moo tax mbugal mën a doon ñi di seetaan rek ñoo ko gëm ñoo koy xool waaye yow mi nekk di di acteur ci mbir mi yow doo gis dee gi ñu la war a rey moo waral mos naa leen wax ci Asiyatu bint Masaahim Asiyatu keroog boo ko di rey mi ngi jàkkaarloog asamaan si mu weex tàll ak malaaka yërmande yi di jël seen ruux yi ruux doomu màcc teye mu weex tàll Asiyatu di xool ba yàgg mu naan rabbi ibni lii indaka baytan fil janna wa najjini min Firawna wa amalihi wa najjini min alqawmi zalimin booba gisatu woon rey gi ak dee gi waaye yërmande yàlla ak malaaka yërmande yi loolu la gis ba ne yàlla yàlla nga ma tabaxal sato ci àjjana ya gën a kawe yàlla lii may gis ni yàlla nga ma ko dundal moo ma gënal middum àdduna bi prépare naa pour dee léegi yaasiir loolu la dund mu metti lool ñu woo amaar ne ko weddil yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbaa ñu rey la mbaa ñu rey sa baay mu gis nañu def baay bi tëral yaay ji ñu yemu ci ñoom jël yaay ji tëral muy suma ya ñuy dóor baay bi baay bi di jox ñuy dóor baay bi baay bi di yuux ñu koy mbugal ba yàgg am ku dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko génnal nga xool sa mbokk yi bëgg la rek ak gëm la rek moo tax ñu toggoo gi fitna waxal te ñaanal leen yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay sang bi nekk nit ko baax ku yàllay wax loo wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wax ñuy waxaat wax mukk ci baax ci bànneexu bakkanam waaye lépp lu mu wax rek yàlla moo ko wax loo sallallahu alayhi wa sallam wani sabran ala yaasir fa inna maw'idukum aljanna yaasir yaag sa waa kër muñ leen sama rendez-vous ak du fii sama rendez-vous ak kay ca kanam suñu borom la ca biir àjjana ya gën a sedd boobu mooy sunu rendement ak yéen ndeysaan naru naru gàtt ci wax waaye lu neex la ay kuñ ko waxante ñun ndaw kontaan waaye yaasir mi rey nañ ko rey nu ñaaw yaayam ñu indi ko fekk moom mi ngi ko mi ngi ko yeew moom Ammaar sang bi ni ko seen seen euh, buur yi abu jahlin ak umayyata mbaam yu bon yooyu nga xam ni ñoo lëmbe woon dëkk bi rek ni muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa woote diine ci lañu tëral nag euh, sumayya ni ko weddil muhammad fekk yeew nañu ko simmi ko mu def yaramu kese dara wëru ko lu rek pendal mu ndaw moo ko wër ñu di ko dóor di sotti ndox di dóor yaram yépp dagg Abu Jahl ñëw ba ci wet gi ñu ko weddil rek saaga lislaam ma yeewi la nga dem sa yoon waaye wax boobu mel ni dafa gën a métti soxna si dafa gën a naqari soxna si soxna si daal ni xaax ak tëflit ni ko mbatt ni ko wal xas wax ju bon yoon ñoo ko mën a waxe gën gi mi nekk gën gën la gën sa bàyyi gën ku dul yow ngay wax wax ju ñaaw jooju mu mer na xund ci jamono boobu xool na xeej bi mu yoroon xool xool xool gisu ko rek mu takk ñaar tànki soxna si ci genn gileem gii takk benn tànk bi ci gileem gii rek dàq gileem yi bee jëm ne bii jëm ne bur mu xar soxna si mu xar tànk yi talli mu dëbb ko xeej ci ci ci xol bi soxna si noonu la a noonu la dee shahid ndeysaan dem aljana amaar ñu téye ko di ko ñaas amaar mi nga xam ni moo dugal bilaal ci yii fii ñu téye ko di ko ñaas ni ko weddil amaar dafa mujj weddi weddil Muhammad mu weddi daa Muhammad ñu doon koy tekki mu toog ndeysaan ba yaram mu dal mu daw nag fëx na kuuti nag te yonte bi sallallahu alayhi wa daanu ci kawam ni ko alku naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko lu la yàq ak lu la alal mu ni ko dañ ma mbugal mbugal ba métti ñu ni ma naa la weddi ma xam ne bu ma la weddiwul dee ma weddi la yonent bi sallallahu ni ko bi nga may weddi sa xol nu mu mel mu ni sama xol ba mi ngi la gëm sama dënn ngi fees dell ak ngëm la sama dënn ngi fees dell ak fonk la ak sopp la yow kay duma la weddi mukk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko tey nga ma gën a gëm tey nga gën a doon jullit même bu subaa buñ la defaatee lu mel noonu waxal li nga waxoon ndax illa man ukri xale yàlla wax loolu ko ñu forcé te dañu laa forcé dañu la forcé jaay la doole moo tax mën loo def lu dul lii kon buñ la forcé te rek defal lii ndax nga mucc sonn ngeen lool Amar wax naa léegi nii moo jëkk a tuub Bilaal avant ñu koy rey fii dem na ci pale bi dem ci kër yi buur yi nee naa la moom du jaam dafa yorul dara nag moog baayam yoruñu dara bokkuñ ci ñi tudd ci alal waaye nag am na accès mën a àgg ci pale bi di waar kilifa yeeg buur yi euh, benn bis nag moom Amar muy waxtaan ak ñoom Umayyata di leen wax Muhammad mii ngeen um ngeen umpale da ngeen réeru ko mbir bu ngeen xamoon ni mu baaxee ak ni muy yemalee nit ñi ak ni nga xamante ne noonu la ñëpp nekkee benn millième ni mu neexee amul maay buur amul maay baadoo la ñëpp ñoo yam bu lekk jot ñooy lekkandoo bu toog jot ñooy toogandoo lu ñuy wax ñoo ko bokk di ko wax ku ne am sa xalaat ci li ñuy wax yàlla di wax di leen orienté wax daa ñu wax jooju neex lool ndeysaan bilaal mel na lu xaw a intéressé wu ni tekk di xool amaar ndeysaan booba leer gaa ngi dugg moom tekk di xool amaar amaar di ko xool bu yàgg moom amaar mu seen jaam yi wër umayyata ñëpp di ay nit ñuul ñëpp ndeysaan di ay néew ji toole amaar daal ni suñu diine jii nag dafa yemale ñëpp ñëpp ñépp ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy Muhammad alayhi salatu wasalam mii ngeen réere dafa wax ne annaasu sawaasiyatun ka asnaanil musti nit ñi ñépp ñoo yem ñu ngi mel ni ba ñuy peñe peñe bi ngay peñe sa kawar ni bañ yooyu mel nee na noonu la nit ñi mel ñun ñëpp ñoo bokk bu ñu bokk ñoo bokk cosaan ñoo bokk aada ñoo bokk lépp laa fadla li arabiyin ala ajamiyin wala li abyad ala aswadin illa bi taqwa allah nee na ñun ñëpp ñoo bokk genn góor gu ñu wax aadama ak genn jigéen ñu awa ngëneel nekk ci man arab laa suufe nekkul ci man duma arab ajam laa nga leen nekku ci ne man dama xees wala dama weex suufee nekku ci ne man dama ñuul illa bi lu loolul ci ragal yàlla gëm yàlla teg yàlla teguwaayam waayam sopp sunu borom subhanahu wa taala ragal a def lu ñaaw mooy te ni ku àq am looy jomb am looy bañ respecté nit ñi jox leen seen cër xam ne yaag ñoom yéen a bokk leen moom bul nangu mukk di bëddaañu ci kaw nit ñi bul nangu mukk lekk ak nit ñi bul nangu mukk nit ñi toog ci suuf nga ne gong ca kaw ci kaw dooleeg pexeeg kompaloo euh, boo xamante ne tewoo ko fenn wax boobu nag nga xamante ne Ammaar wax na ko ndax boobu moo jëkk a dugg ci dënnu Bilaal bi ko Bilaal déggee xol bi dafa sedd mu ni jàkk xol amaar mu daal di xool amaar bilaal umayya si daal di koy xool nga xam na ni bilaal mii lii amaar di wax ñor na ko waaye ama am umayya ni ko jàkk xool ko bilaal jooy umayya te dal ni ni seen diina ji bon ji rek moo tax sunu jaam yi di ñuy weddi di dugg ci seen di di dugg ci seen diina ji loolu daal mënuma ko concevoir benn yoon seen genre diina yi yéen yéen yéen lëkkale yow Amar yeboo kenn ñun nga yeb ñun ñii mooy ñi nga yeb ndax boo amee sañ-sañ sa baay yorul dërëm ndóol sa ndey yorul dërëm ndóol nga fekk sunu maam yi sunu baay sa baayaate bàyyi di jaamu laata ak uzze ñu am yàlla am lu nu gëm am lu nu bëgg ñun waa Quraysh nga ñëw di ñu imposé diina joo xamante ne ki nga indi xamuñu ko tekkiwul dara amul xaalis amul or ndeyam dundul baayam dundul ñu bàyyi ko ci biir di ko yaatal mu xëy xëy weddi ñu yéen ngeen bëgg xëy xëy dugg ci diine jooju di ñu weddi dal ni bërët jël benn yar jël benn yar jox ko bilaal ni ko demal nga dóor amaar mii demal nga dóor amaar duma ko ay te na dal bilaal ñëw ba tiim ko yëkkatiwul loxoom ndeysaan ba may dëgg dóoral dóoral Bilaal daldi jooy mun ko dóoral laa wax Bilaal jooy mun ko di ko dóor wala doo ko dóor Bilaal ndeysaan daal di laxasu ci kaw Ammaar ndeysaan ñoom ñaar ñu ànd jooy jooy yu métti métti métti Umayyata radiyallahu laanatullahi alayhi daal di ne Bilaal da gëm waxi caaxaan yii moo tax ngay weddi sunu wax ba tax ngay laxasu ci kaw saay-saay bii nga xam ne li muy def tegu ko fenn nga laxasu ci kawam di ma weddi man di ma toroxal ci sama kanami naw la itamay sa kilifa yilif la yilif sa baay yilif say maam bu doon démb ñemewuñu sunu maam yi wax ngeen di ci teg baat tey jii nag ngeen di ci teg baat ah mbokk yi foofu nag fa Bilaal noppee am jàmm fa Bilaal noppee am jàmm Bilaal di ko rafet ngëm ndax booba li Ammaar wax virus la bu ko dugg tax moom itam mu gën a defaraat boppam am fulla ji mat sëkk am fayda ju mat sëkk am ngëm gu sell am xol bu sell ah sopp lool yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom Bilaal yemale ko woon ak dara saa wu ma am occasion boo nee ana Bilaal mu ne ma nga cee yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo yey nag guddi ma nga fa bëccëg ma nga fa saawu ko sangam noppee liggéeyloo rek bilaal a nga fa umayata moom bilaal comme ni ma ko waxee woon ci waxtaan wu njëkk wa umayata mii xalaf moo ko jur xalaf wahab moo ko jur wahabu xusaafata moo ko jur ibnu jumax ñii ñoo moom bilaal ndax ñoo moomoon yaayam xamaama ñoo moom également euh, rabaax umayata jàpp bilaal di ko toroxal di ko fitnaal am na benn bis mu futti ko ba mu set wicc moom umayata mii tëral bilaal ci naaj wi boole koog ay xale ak ay jaam yu doyadi yu ñakk fayda ñuy dirit bilaal du ko diri ci naaj wi du ko diri ci kaw xeer yi umayyata yor yaram di dóor di dóor ba toqi bu dóor ba toqi bàyyi jël ay xeer yu ñaw di ci diri bilaal ginnaawam googu ñu jëy diri bilaal radiyallahu taala ko mu jël ay buum ak ay ceen jéng bilaal ñu wër ko di dóor bu sonnee keneen jël aye mbokk yi moom umayata moomu demoon na ba xeeb dóor yi mujj mujj jël aw xeer wu mag boo xamante ne kenn xamul ñaata kilo la mu ànd ak moom bërën ko nag tekk ci kaw bilaal nag naan ko laa wallaahi laa wallaahi laa tazaalu hakaza hatta tamut waaw waaw nii rek de du ma daj mukk di la fitnaal di la mbugal di la teg lu diis di la teg lu metti ba keroog ngay dee rek aw takfur bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa taabudu laata wal uzza wa izaka yaqulu bilaal bala wallahi ahadun ahad ahadun ahad ahadun ahad ma yete naan ko du ma deñ di la toroxal du ma deñ di la fitnaal lu metti la lay teg du ma denc nii mukk nag système bu ma génnee ba nga miin booba rek ma génnee beneen rek ba keroog ngay dee ñu sànni la fa ñuy sànni médd ya mbaa nga wedd Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dégaase ko génn ci diineem bu ko defee wa taabudu laata nga jaamu yàlla ju wax laata ndax moom laa xam moom la sama baay xam moom la samay maam xam boole ci uzza ñoom ñii ñun moom la ñu xam ngay topp Muhammad mi nga xam ne nag jëmul fenn loolu di ko bàyyi nee na fa yaqulu ci jooju jamono nag bilaal moom ma ngi wax naan balaa ahakañ balaa ahakañ laa wallaahi ahadun ahad kenn ki kenn la ahadun ahad kenn ki kenn la kenn ki kenn la ahadun ahad radiyallaahu taala bilaal di ku ñuul di borom der bu ñuul ngor gi ak fit wii ak jom jii ñun ñëpp la ci yóbbaale sallallahu alayhi ibnu isxaaq nee na jële nañ ci xisaam ibnu urwata mu jële ci baayam mu ni ku ñuy wax warqata ibnu nawfal bàyyi tax la woon ci xadijatu radiyallahu taala nee na warqatu mii bu ngeen fàttalikoo keroog bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis jibril te xaaru xiraa ba mu demee tey xadijatun sakkanat bil qalbi qaailatan lam yuxsika allahu fi daarin laa takimi jaat li warqata taxkiima waraaw laha qaala naamuusu muusa zaake fabtasimi yaa layta ne fiya saaliman la dal ixraaj yi warkati mii moo doon wax wax jooju ndax warqata baay tax la ci xadija maanaam magu baayam wala rekk bàyyi mooy baay tax ma nga tonton la bokk bu dee ñun tonton lañuy wax ñun tonton lañu wax lépp tonton lañ koy wax sa rekk papa sa tonton koy wax te papa la warqata ibnu nawfal bàyyi la ci Xadija ndax rek ko bàyyi na ma la ma ko romb na wala boog fekke na ñuy mbugal bilaal mu gis système bi ni mu bone ak ni ñuy toroxale bilaal bilaal naan ahadun ahad ahadun ahad kenn ki kenn la kenn ki kenn la kenn ki kenn la warqatu nawfal dal di wax ca kaw wallahi ahadun ahad ahadun yaa bilaal warqat dal ni ko billaahi kenn ki kenn la kenn ki kenn la kenn ki kenn la yaa bilaal ndeysaan dal di waaxu ba ci umayita mi nga xam ne moo moom bilaal te di ko def mbugal mu metti mii ni ko waaw kii ngay def lu metti lii lu mu la def ba yooyoo mbugal mii umayata ni ko dafa weddi sama diinay dafa weddi sama diinay baay xalaf weddi sama diinay maam ak sama maamaati maam li nu gëm ba nu juddoogul ba léegi nekk ci mu xëy xëy weddi ko naan ma ngay topp Muhammad mii nga xam ni tas na dëkk bi tasar te jubloo guñ ci ay mbiram bu ñu jubloo ci ay mbiram dana xam ni tooñ nanu nawfal dal ni ko yow sa baay amul diine sa baay ban diine la am sa baay ceddo la bu bon xërëm du diine te sa baay xërëm la doon jaamu te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo la yonent ab aaxiru zamaan ñun jàng nañ ko ci suñu téere yi tawraat indi na ko injil indi na ko ñëpp xam nañ ni amoon na yonent bu des te mandarga yi jàppoon ni yonent bi ñëw noonu moom lay indi moom la indi kon nag bàyyil jaambur ëpp nga ko doole not nga ko moom nga ko waaye doole képp nga ko ëppale nag kii yàlla moo ko yónni waaye warqa mu dal di giñ nag ni ko wallaahi boo ko dóoree ba mu dee ci lii bis bu dee ci sa dóor yii dinaa tabax bàmmeelam def ko héros national nit ñi di ko ziyaare bàyyi leen nit ñi ngeen di noggatu bàyyi leen jaamur yi ngeen di noggatu ñi ngeen di ñi ngeen di fitnal bàyyi leen leen bàyyi leen jaame yàlla yi yéen fatte ngeen lakkale ngeen bàyyi leen jaami yàlla yi ndeysaan mu ne nag law qataltumuuhu la taxastuhu xanaanan bu ngeen ko reyee rek dinaa tabax bàmmeel bi te dinaa wax ñëpp ni leen ñëw leen ngeen di ko ziyaare te boobaa di ngeen gën a am gàcce ndax jaam bu ngeen di dóor di ko fitnaal ba xëy mel nii ñu dabax bàmmeeram nit ñi di ko jaamu di ko wër te amuleen ko ci seeni i maam amuleen ko ci seen bàyyi seen ngàcc lay doon bàyyi leen jàmbur ah war xata mii de wax na te yàlla tax booba temps day gis dëgg wax ko moo jafe woon gis dëgg sa xol nangu ko jafe woon na lool mbokk yi xool leen fii rek ndekete am na ñoo xam ni mbubb rek lañu baax le yor grand mbubu samba sembe kaala yor kaan yoru yet boo génnee ñépp topp la nga ami jaam am alal ju dul jeex yor riyaal yu bare bare bare bari waaye yow ndekete ay kuur ak i gënn ñoom ngay jaamu ay dénk ak i xeer ñoom nga gën a gëm mënuloo xalaat mukk ni yàlla mi bind mooy kenn ki te mooy allahu ahad te mooy samat mooy lam yelit mooy walam yulat mooy lam yàkkuloo ko fan nanguwuloo ko xanaa toog nekk ci benn bant walla génn gënn wala génn kuur goo xamante ne yaa ko fa samp taxaw ci wetam di jooy naan ko sama doom ji dafa feebar fexeel mu wér sama doom ji dafa feebar eh yow laa yaakaar ay laata laata fexeel sama doom ji wér wala nga ay laata fexeel sama yaay feebar sama yaay ngi lay nuyu sama baay ngi lay nuyu sama tante kay démbati woon ñëwoon na fa toog di wax mel na koy wax ko xam ni dana la dégg mbaa la ngay wax koo xamante nii moom tekki na dara ñu cuune googu ak ak ndof googu moom la moom la moom la moom la moom la moom la ñu nekkee woon di sëgg ci loo xamante tekkiwul dara tey ëllëg taxaw di ko jaamu waaw léegi nga jég ni day jóge na dëkk ba ñëwoon na fi moo la jox biscuit mii wala day wala boog moo la jox moo la jox dogiti mburu yi wala moo la jox soow mii ndax arab yi nag dañu sa dañu dañu dañu dofoon ndax dañ daan jël ay jaam yu ñuul yu jigéen dugal ko ci seen biir yàlla yi bu defee bu nit nee bis euh, xew am na fa suñu dee wër di wax dañuy nekk mel lu dégg ay baat parce que dañu gëm ni kon lii wax mooy yàlla ji nekk ci biir fekk na ay pexe la rek la ak yu ñu fa defoon yooyu daal moom la nekkee woon ba sang bi alayhi salaam ñëw nag dimbali leen xam naa ne bu woon ak li yàlla yoonu yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam foofu xaw ma ñoom fu ñu jëm ma ngoog kon na jërë ngeen jëf mbokk yi ñu dégg suñu baaraam foofu ba subaa jàmm incha allah ñu bàyyi place beeg suñu mag suñu sëriñ suñu soppe oustaz Alioune Sall yàlla ko yàlla gën a may wér te sàmm ko te daf ci ay poosam dara may ko kàttan musal ko ci lépp lépp ndog yàlla aar ko ci ndax xam-xamam bi muy sotti ci réew mi ñëpp ngi ci jëriñoo yal na yàlla gën ko sàmm bu ñu daanee rek ñu jox suñu soppe moom itam sëñ Mbàkke Sylla moom tabaarakallaahu yàlla ko yàlla jàppale yàlla yàlla taxaw ko xam naa ne sonn na ndax koor bi fi ne boo déggee baat bi ci xamtu moom di nga xam ne moom mii tey moom tabaarakallaa waaye nag mu ñëw rek Mbàkke léegi fi jeex jërë ngeen jëf ko dak suñu mbokk Alioune Badara Socé moo nekkoon ci technique bi seen mbokk Oustaz Alioune Mbaye moo nekkoon ci waxtaan wi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu